chers fidèles internautes ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen euh, ziaraat di amaan mbégte bu baax a baax jonne ak ci seen chaîne leader bi di Equivox TV comme ni ñu koy defee à chaque fois rek nee naa leen actualité rek lañ leen di euh, toppal tey nag dugaat nañ ci li nga xam ne mooy làmb ji ndax ku ne xam na ni am na ay bés yu am solo yoo xamante ni rek mu ngi suñu kanam ay combat yu ama am solo euh, mu ngi suñu kanam tey nag ma am mbégte euh, seet si koo xam ni kenn dootu ko présenté Sénégal muy père Khadim Ndiaye di ancien lutteur tey waxtaan ak moom ci li nga xamante ni rek moom mooy combat yi nga xam ne moo nekk suñu kanam balaa ñoo xuus ci waxtaan bi dañ koy nuyu d'abord bàyyi ko mu nuyoog ñuy seetaan à travers Equivox ñu ngi lay ziar bu baax a baax tonton di la bàyyi nga nuyoog ñuy seetaan à travers Equivox TV. waaw jërëjëf ginnaaw bi ñuy sant yàlla di wax baatu onze billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñuy sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant sëñ Muntaxa Xaadimu Rasuul yàlla na ko fi yàlla yàggal te wér muy sëñ Muntaxa suñu buntu ci sëñ Touba muy sëñ Modou Habib xalifa Daar Rahman sañ Cheikh Mbacke Daar Rahman yàlla na yàlla yokki leeram taas ci barkeem di la nuyu Bintu Rasuul di nuyu sa caméraman yi di nuyu sama papa ji tey xam nga man fii sama papa rek a fiy toog gis nga sama papa yi dañ ma bëggal seen bopp ak sama commerçant bële waaw fii fii moom kër jàmm la quoi di nuyu Pape production di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm di nuyu tamit euh, Pape Abdou Fall mooy sama lépp Pape Abdou Fall gor si nga xam ni gor pire bu ñu koy wax rek jàppal Pape Abdou Fall sama xarit la sama lépp la di nuyu tamit euh, moo Ndiaye directeur ci États-Unis Série Madeleine di ko ñaanal jàmm as ndaw borom dukkumaan maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm di nuyu Kéba Kanté mu papa Cheikh Kanté yàlla na ko yàlla defal jàmm di nuyu Babacar tamit ci États-Unis Babacar taalibe sëñ Mor Aram Kebe ci Angleterre nga xam ne moom la moom tuddee dippe sëriñam bokk ci magi sëriñ Touba di la déglu nag ci say question ñu dugg ci. digganteeg Pape Abdou Fall damay gis à chaque fois rek ci promoteur yi yëpp ci làmb ji moom rek nga féetewoo lan mooy lan moo waral seen diggante. ba pare taq ci rëpp. te ragal féete day xañ a wërsëg di nuyu tamit Mansour Ba di ko nuyu waale passage mook père ba papam yàlla defal ko jàmm ndax Pape Abdou Fall dañu yàgg maak moom depuis sama yaay la woon sama yaay wu jóge fi dem Touba xam nga ma nekk ci tolof tolof Pape Abdou Fall tegguwul tànkam jàppale ma kon du ma gën a gore di ko nuyu di nuyu ak njabootam yëpp xam nga soxnaam yi di leen nuyu di nuyu ay doomam ba du jaaw di ñaan réew mi daal yàlla na fi yàlla def jàmm muy leeral boo xamante ni rek digganteem la ki nga xamante ni moom mooy Pape Abdou Fall waaye nag dañuy ñëw ci li nga xamante ni rek yaakaar naa ni euh, euh, ay combat la yu ama am solo yu nekk suñu kanam muy ay combat yu mag a mag a mag ku ci mel ni euh, Siteu ak ki nga xamante ni rek moom mooy Lac de numéro 2 mu nekk combat boo xamante ni ñu bëri jàpp nañ ni risque la ci ki nga xam ni moom mooy Siteu waaye keroog seen face to face bi gis nañ Siteu li nga xamante ni noonu la doxalee gëtam Lac de Guiers 2 wala Lac de Guiers 2 ñàkk keroog noo gisee Siteu comportement am envers Lac waaw c'est parce que buñ la fay ay millions fay sa moromu naw la ay millions c'est parce que da ngeen war a yëngal xam nga indi wuñu leen fa rek ngeen toog mel ni kuy fotow kuy fotow da ngay dem studio mais xam nga Siteu c'est un grand champion Lac de Guiers c'est un grand champion kon tey suñu leen boolee war nañu jaay produit bi ndax promoteur bi seen nawle la ba pare nekk jeune comme ñoom ñoom buñ magul promoteur promoteur bi magu leen kon bu leen tëggee ñoom ñaar c'est parce pour ñu génne ay étincelle jaay combat bi xam nga suñu xëy na fa mu toog yëngawutu fa deful dara mais ndax lamb jooju ñi ñaa ngi takki rajo naan Siteu combat bi dafa diis ci moom ak dafa nangam mais le jour ji la ñuy xam ni bu ñu yàlla yóbboo ci jour bi ba ñu fekkee kook jàmm kenn bañ a manqué fair play bañ dugg ci géew bi dañu xam ne Siteu mii li mu doon wax lu nekk ci moom la walla nekkul ci moom. Lac de Guiers nag c'est un grand champion ñu respecté ko mbër mu yaru la mbër mu joxe cër la mais nag dafa am lu mu wax dana bu arbitre soufflé day dox ci suñu kaw day dox ci kaw Siteu. ñu ngi ñaan nag bu arbitre sute arbitre soufflé dañ ko ubbil porte yëpp bu see suñu kaw ne la wóor li ko si waxee rek ku nekk sa kër ngay reere yéen man maa leen ko wax euh, mbër la boo xamante ni comme ni ko Siteu waxee ci ay waxam euh, dina yombee noonu. waaw mu bañ a changer communication mais ni ma dégg mu waxee moom la dëgër su ko doxalee rek ñun dinañ teel a tàggoog moom bu ñëwee nag téye boppam ñoom làmb la am nañ droit téye suñu bopp comme nag nee nañ moo ñu ëpp doole moo nu mën moo nu sut kon moo war ñëw appliquer. Siteu amul lu muy gagné ci combat boobu xam nga Siteu daal am na ay conseil ay magam yu nekk ci am di ko jàppale di ko ñaanal yàlla may ko ndam yàlla ñu ci yàlla yóbbu nag yàlla may nu ndam mais kenn tamit dinaa ko ñaanal yàlla may ko ndam muy Tafatine contre Eumeu seen maa ngi ñaan Tafatine yàlla na la yàlla ak Serigne Touba may ndam lu sedd guy guy guy dama gis nag Bintu Rasul maa ngi wax loolu rek nga di ma xool lu xew. dama damay laaj dama la bëggoon laaj question avant nga may xool sax naan dama la xool parce que dama gis nga féete ci Tafatine lan moo tax loolu. ama ci droit ku la yëg nga yëg ko Tapha moom laa sopte pour arbitre ne fër te combat bi dama ciy taxarib ci xalaat ak ci lépp lu ma mën a jox Tapha pour yàlla may ko ci ndam dinaa ko def ndax mu yarul la te Tapha Tine mu yóotu dafa jot waaw dafa. nee euh, ay minutes la may am euh, ki nga xam ne mooy Tapha loolu loolu wax leen rek loolu lamb la signature la mais ku ne xam ne ni am seen combat bi du ci xeex ak Tapha xam nga du xeex ndax combat bi combat la boo xamante ni moom li koy arrangé mooy arbitre ne fër mu jege tafatine bu tafatine ne jéy mu daw sonko moom jàpp ko indi bëre te daa xula bëre tafatine tafatine nag moo koy xañ loolu tafatine moo ko gis nga làmb ji tafatine il faut mu touché ko touché waat ko pour jàpp ko daan ko waaw seen ndax bëri ngeen waaw bëri nañ xam nañ ko quoi xam nga ndax man egguñu foofu sax maak moom wax dëgg yàlla egguñu foofu arbitre dina fër mu ne dama koo luqi xam nga dama ko luqi man te yoru may di luqaate mel jigéen man xam nga du ma luqi kenn samay arrêt kay la benn góor àttanul xam nga yàlla mooy changer nit Bintu mais yàlla mooy changer nit def lu ko neex mais tund bi ma nekk sax amul benn mbindeef bu ma fi yab te ñëpp laa jox cur sàkkantuma ak tund Sénégal xam nga ay affaire banditisme ak kii lu ñu di jaay rek ci àdduna ci xaadim mii la buujoo mais yàlla nag mooy changer nit def ko lu ko neex xam nga ma ciy sant yàlla mais moo tax dama gisee nit di bandi bandi lu ko jëme ci xaadim ay ay damay jàpp dama xam ne li bay wi lekk bay cëppi cëppi moom la xar mi lekk na nem nit ñi nañ dal te ànd ak dal combat boobu combat choc la boo xamante ne bu neex la Eumeu seen gis naa ko temps yi mi ngi renforcé wu c'est un grand champion nag ndax ku mën bés la xam nga te nekkul combat boo xam day yomb ci Eumeu seen day yomb ci Tapha xam nga man nag am naa droit octane Tapha moom laay ñaanal Tapha Tine ku muy bëreel ku ak samay booy man moom laay àndal. moo tax loolu lan mooy seen lan mooy seen non dafari tax ndax Bada Dione sama xarit la sama waay la te Tapha jox na ma cër xam nga comme jox na ma cër nag. moo tax man ku ma jox cër dama la koy delloo ba mu mat sëkk ndax ñun amuñu lu dul cër bi ñu am xam nga euh, di masawul lak benn rakku liiru jaan bu ñu arrêté muy Maguette Seck di ko ñaanal yàlla defal ko mu génn ak jàmm ndax kaso moom kenn du ko yéene nit ku nit ku la plainte wala ku la yóbbu kaso jàppal ni sam noonu la waaw gis naa ko nag muy jooy jooy ngi salam yooyu xam nga xam nga ko xam nga ko kay tur wi laay tudd sax xaw ma màggatum jaan xaw ma lan fii laa génn ci ci ci ci Wally Seck moom i affaire bi choqué ma may jooy ndax sama doom la moom i sama doom la ku ne xam ne ne maag baayam terrain bala indi naa fi baayam baayam ñëw sama kër gi ñaari yoon ñu seq ay kóllëre coon jiitu ñu ne déet waay taawam def ci xam nga day metti ma yërëm Kiné Diouf ndax jigéen la xam nga sama rongoñ ji tuur mu génne ne damay ngi salak lu ne mu wax tey ñu ngi nii téye rekkam kaso xam nga kee dafa dem dootul ñëwaat mais ki kaso lañ ko téye lu mu yàgg-yàgg day génn demul lu mu ci jooy hmm? lu ci jooy naan nit ñi nee nañ complice la xam nga moom nit la koo xamante ni dadul xalaat nit buy xalaat kaso Maguette Seck di lu mu yàgg yàgg day génn mais xam nga moom monument gi muy woote te moniment bu damm bu Maguette xam nga monument boo xam ne amul peinture dañ ko defar ko kii ko raax ko te kenn ko xam nga gerte gu wànq mooy liiru jaan lu ma génn def mu mu mu mu toppandoo ma ci te maa moom bokkuñu dañoo bokk école te bokkuñu classe xam nga. nee naa leen samay archive bu ngeen ko taalee taal archive yu Lirou Diane bokkuñu sax c'est-à-dire nit day am esprit de dépassement moo tax ma oyofal sama bopp man gis nga ma lii may def sañu koo def man man su may def émission sama digg bunt mbedd laa koy defee nit ñi di romb ndax li may wax nit ñi sax ñoo koy njëkk a dëkkal ñoo koy njëkk a dëggal ni Khadim Ndiaye du wax lu dul dëgg xam nga àdduna bi nag wax fi dëgg dafa jafe wax fi dëgg dafa jafe boo koy wax nag bu ragal a man ragaluma wéet ndax man li ñuy wax naba maay noo booti ginaaru kenn nenu ma yaakaaruma kenn ku dul yàlla ak yonent bi ak sama turandoo muy Serigne Touba Khadim Rasoul xam nga ba pare gëm leen ba pare wóolu leen moo tax tu ne peur rien aw ma dara lu may li wax tubaab bi naan tu n'as pas aw ma lu may peur ci doomu aadama ndax nit ki yàlla la sàkk sàkk ma. seede yàlla dina am nag cër bu ma la jox am respect bu ma la jox am valeur bu ma la jox mais boo ko naree de dépassé rek moo tax Pape Abdou Fall kenn du moom ngàcce ngalaama mais mais seeti nga seeti nga rakkam bi. Ah, fay dem mu ne ma bu fa ñëw man oo naa ko di ko masaw lu ne xas na ma ko ci lu ne wax na ma ko ci. mais du ma sa jeex tant que combat bi jeexul du ma sa jeex tant que dóoruma ko ba mu sedd guy guy guy ah, ñu yóbbu ko altu sama xol du sedd waaw tant dóoruma ko ba mu sedd guy. bintu rasul tant que ma liiru ba mu sedd guy guy guy guy ba mel ne nag yu weq wala xar du ma am lu ma neex. ah promoteur bi day wax dëgg yàlla Ablaye Diop xaas la maa ngi koy nuyu à passage waaye promoteur boo xamante ni am na lu mu la jox mais boo ko waxee du la jël day sone rek man ah waaw du la jël moom boo ko waxee pour nga jot ko sax problème la waxula waxula janvier daal lay dégg mais janvier nag kenn mënul xam da nga war a xam ban date nga ciy bëri danga war a xam ban date ngay bëri xam nga ndax man dama bëgg ñu letti ma wala ñu firi ko quoi ma xam ci lu ma leer ban date laay bëri janvier laay bëri wala nangam ndax sama jour jibile la te samay nit yi may jàppale ñi moo koy laaj quoi. combat beeg Lirou Diane. ah combat beeg Lirou Diane. muy sama combat ak Lirou bi ndax jour boobu laay def jibile ci laay bàyyi ci laay tekki sama ngemb ak yëpp def ko jibile kon war na maa xam date bi quoi comme xaw ma date bi nag damay neutre rek xam nga bintu rasul réew mi yàqu na. Aziz xale bu ndaw la joxe lu ma dépasse nañ waxante dëgg rek. di liggéey yàlla may ko teranga mu mu mu takk ja Aziz Ndiaye am na lu mu yore jur ñeenti jabar yi lislaam ma ne Aziz Ndiaye am na lu mu leen yore góor am na droit takk ñaar ba ñett ba ñeent mais Aziz Ndiaye takk ñaari jabar rek xale yu ndaw yu nekk génn ci TikTok bi lu ne ñu di ko yekk lu ne ñu di ko wax mais lépp nag damay jàpp ni du photo Aziz Ndiaye photo Miss Ndiaye la ndax Miss Ndiaye une grande dame comme Miss Ndiaye ñu la takkalu ju rek yow it ngay jël say bagage dem seen kër su fekkee dafa am comme niñ ko waxee fekkee am na rafetlu ma ko te nag nit ñi lépp lu ñu wax Aziz Ndiaye rek dañ ko tooñ te ñiy wax Aziz Ndiaye naan lii seen bàyyi amul dépasse Aziz Ndiaye mi ku ne xam ne ni mën naa yor fukki jabar bëri nga fi ñoo gis ñoo xamante ni takk na ñaari jabar ñu leen a yor seen jabar yi ñoo yor seen bopp mais kii xale la di liggéey nekk ci ban foo am takk xool xale bu rafet toog ci peggu ndaay mu ñëw takk ko may ko teraal ko teral ko mais léegi leen rek laa xam ni sénégalais war nañ ci bàyyi xel ñun ay sénégalais lañ réew mi nee nañ li ci ëpp ay jullit lañ di nuyu sama mbokk chrétien yi mais damay gis nit ab jullit sax day dee day génn àdduna yàlla na ma yàlla ñu jégal ci baat bi nit day génn àdduna sax ñu war koo ñaanal fukki lixlaas ak benn ñu taxaw ci stade bi naan nañ ko defee une minute de silence une minute de silence tubaab bee ko fi créé nañu waxante dëgg rek une minute de silence kan moo ko créé du tubaab bi lenn tamit ñun ñun sénégalais yi dem nañ ba roy yeeg yëpp ñun waruñu wax tubaab yi dara de dañoo roy ba dàq leen léegi da ngay ta gis ku takk jabar sax ne liin de miel lune de miel mooy lan. bu njëkk waaw lune mooy lan bu njëkk ba da nga daan takk jabar ñoo xam ni jël nga xale bi ci kër nday ma kër baayam xam nga lu tax muy lan moo nekkoon lune de miel nga nga nga egg ci ndaw si ñu fekk muy jànq bu mat sëkk nga xëy suba ndënd yi jiin loolu mooy lune de miel bu wóor bi mais léegi lune de miel kenn xamul ndax yow ki nga takk lan la wala doon. leen di bu ngeen àndee dem fenn def seen gundaandaat ba mu neex kan mooy xam ndax yéen ñaar kee nekk na liñ liñ doon xool ci moom mi ngi ci wala déet il faut que yi dellu si xel yi sama benn sœur bu ñu doon may fi ami topp ma gën a nekk tout tànk mu nekk fi dañ ko doon may jëkkër biñ ko mayee jëkkër dama xëy suba rek ndënd boobu duggaguma sax ci làmb dama xëy suba rek dégg ndënd tuus mi tuusum fajar ma bëgg léegi boo gisee ñu bëri nag nañ ma baal jigéen ñu bari ñàkk jom loolu nag mais baaxantal boobu daan am moo tax léegi jigéen ñi taamu appartement yi ndax ñu ci bëri nekkatuñ ay ndaw nañ ma baal bu ñu demee jigéen day jënd ay produits pour naan ko pour affaire am yi fermé wu waaye waaye réew mi fu ñu jëm dem gu ndaandaat ci àll ba mu neex la ab sa ku la gis jóge fële Europe wala Moodu Moodu jóge fële ñëw gis yaakaar ne xale nga fekk yow magum jëmm nga li nga xam sax. li nga est-ce que kon d'accord nga ci Aziz Ndiaye nu mu jëlee jabar ji dem ak moom. non Aziz kilifa la. dañu waxante dëgg rek Aziz kilifa la Aziz jàpp ma ni sax dem na ba Dubaay di di ànd ak jabar ji di photo di ko dugal nañu waxante dëgg Aziz waaw non xam nga xale xale bi bul fàtte nag ki mu takk xale la xale nag il faut mu def yëfi xale loolu Aziz mu neex kooku mu ñàkk ko bañ a neex xale bi il faut mu neex yëfi xale mais Aziz boo gisee may wax ci moom dama xam ni nit ku baax la l'homme social la nit ku investir ci réew mi la nit ku mën a dimbalewaate la nit ku am yar la nit ku ju ami teggin la nañu waxante dëgg rek Aziz bu dul lii Aziz mosoo koo dégg ci ñàkk fayda mais ba nga defee vidéo bi génn ñu bëri nañ Aziz da laa fay wala Aziz euh, dafa am lu mu la jox moo tax nga génn ko defaa ñoom seen bàyyi lañ fay ñoo ñuy wax ñoom ñoo xam ni ñuy fayee seen i la ñuy fay man amul personne bu nekk ci réew mi fii ku mën a sañ a fekk Xadim Njaay mu toog nga ne ko am maa la jox lii classal ma diw wala lii maa la ko jox nangal ma lii ku ma ko wax ma la ko wax jox ko sa baay man dama regg démb aw ma dara nag mais soxna si man dama gëm sama bopp ku ma ko def man la jox ko sa baay damal jox sa baay moo man barki Sëñ lu Mbacké amul amul personne dinaa gis nag lu jaaduwul lu xamante jaaduwul ma génn wax ko xam nga biñ fi mbëri génnee dem mbëri biñ fi génnee dem ñu oo am lu leen jox benn mbër sañu la ngaang man rek maa ci ngaang ñoom ñëpp buñ ko defaantoon suba ma def ma génnaat. gisoo ne ñoom seen génn boobu ñu génn dem indiwul tuuti yàqu-yàqu ci li nga xam ne mooy làmb. comme am nañuy combat kay seetaan na rek ñoom ñëpp am nañuy combat yàlla ñu yàlla dimbale comme am nañuy combat comme li ci kanam rawuli bët ku ci sa loxo laale kay di nga ñam moom bu tàng jër pataas bu tàng jër di ko ñam ndax dama xam ni li ñuy woote nekkul ci ñoom barki sëñ Fallou Mbacké waaw li ñuy woote nekkul ci ñoom da ngay gis ni sax dañuy yëkkati ay xaalis sax di ko di ko di xam nga les les lutteurs en activité moom daanaka amuñu président amuñu dara amuñu dara lañ amul ndax lamb ji xale yu ndaw gis nga nag lamb ji ma wax la xale yu ndaw yëpp mbëkki nañ mbër moo fi gëj a gis rek mbëkki na mbër mu ndaw boo fi gëj a gis rek wala mbër mu mag mbëkki na ñëpp dem nañ. ndax ndaxte promoteur yi tëggatuñ comme bu njëkk ba ni daan tëggalee xale. waaw mais c'est parce que li tax mu sooxee mooy sponsor yi ñoo xaw a daw tuuti xaw a bàyyi xam nga te ñun presque mën naa ni ñoo moom suñu arène bi mais jàppale bi ci war dëgg ñu ko kon il faut ñu delloo si siwaat xel yi xam nga CNG moom li liñ limu mën gérer rek la mën ndax CNG du tëggi làmb gérer rek la mën kon promoteurs yi ñooy bailleurs yi il faut que ñu respecter promoteurs yi mbër moo ci tëgg bu demee xool ñaar ñett ñeent jekkul jàpp mbaggam wala jàpp om bi di siri di ñu bëgg a rey ak di siri téeméeri médical ak juróom benn fukk dugg na ci 2023 beeg 24 bi 2000 2022 bi ba ci 2023 bi ñaata médical fi dugg ay ponk li magam jëm yor seen i jeeg ñu fay leen ay million ah promoteur bi nekk xale comme yow nga lekk ko ba pare na mugg moo tax ñoom ñëpp seen biir yi ñu yor ay biiri sànn la yenn xaalis bi boo koy lekk ba pare bëriwoo ko sandong ngay ay sandong foo gis ñi ngi ay reeriñ seen njëriñ la ñu naan ak yu ma xamul dëkk bi il faut ñu wax dëgg nit ku la éversir bu mel ni Mansour génne ay centaine de millions joxe xam nga ku mel ni Pape Abdou Fall génne centaine de million joxe waroon ko mën a dem jënd ay immeuble tabax ko di ko loué deful loolu di ko def te teew def ko ci làmb kon il faut ñu delloo si xel ci promoteurs yi bàyyi leen xel bu baax nag Bintou Rassoul ndax promoteurs yi kat bu amuloon làmb du dox de te gis naa ni fan yi làmb mi ngi yow ngi dégg combat Modou Lo Ama la 5 de dans deux semaines xam nga dans deux semaines bu ñu bëree. boobu bëggoon naa tamit nga wax ni euh, ban jàngat nga ci am aussi tam parce que gis nañ Ama Baldé ni nga xamante ne noonu lay euh, def ki nga xamante ne moom mooy Modou ñu bëri sax naan respecté wul combat bi dafay minimiser ki nga xam ne moom Modou mais Modou Lo itam ñu ko benn tekk-tekk kaaral ci ci combat bi. xam nga tekki mag duy nelawam Modou bu nee tekkit nelawul mais Ama day xale boo xamante ni jàmbaari fëkk tëdd la. yàlla niital na ko ba mu egsi ci bopp roi bi mais tey bu ko ñàkkee pour mu dabuwaat ko day metti kon xam nga ni Modou Lo téye roi bi ne Ama daan ma ak ku rey laa yemale kon xam nga ni combat boobu ñaari été ñaari weñ dajale étincelle rek moo fa mën a am xam nga il faut que nag ñu bàyyi mbëri ñoom ñaar ñu ñu ñu ku ci nekk génn li nga war a am li may ñaan rek mooy na ñëw ca làmba jooju ak yar ak i teggin ci côté Pikine ci côté Parcelles ndax ñun mbër yi waratuñoo am droit li ñuy jiiñ naan bu làmb amee bu tasee suñu supporters yi dañuy war di agressé jigéen ñi di sàcc seeni i téléphone di di jël instructeur jàmbur loolu ànduma ci xam nga te Modou Lo ku waxal yàlla di nga xam ni Modou Lo c'est un champion hors bu egsee fii ci làmb fullaam ak faydaam ak mën a bëre moo ko fekk si xam nga tey mu dem ba téye bi benn jeune boo xamante ni ñu ngi ko wax Ama Baldé bëreegul ak li mu Modou Lo bëreel am sens su dajeeg xam nga ni Modou Lo ko bàyyee du te Modou Lo combat bi mooy tax yeneen combat yi ci kanamam ñu xam ni mën na ko eggale mën mënu ko eggale te Ama Baldé tey amul droit def erreur ci kanamu Modou Lo ndax xas-xas loo na ba pare moo tax mën la combat boobu combat jànq la boo xamante ni ñaari mbëri yëpp nit ñi dañuy wax rek ku ci ku ci analyser nag jëm ci benn côté da ngaa far mais Modou Lo mi ma gis avant ko Ama di daan dina daj lu ne. Ama nag am na lu muy jëlee ji Modou bu jëlee kuwu Modou lamba mën naa yàqu te ama di premières minutes di la su combat bi passé dix minutes dina metti loolu ci ama Modou Lo tamit combat bi lenn lenn nga ci bu dof dof la ba jël ku Ama Baldé ndax ama xale la am na puissance bu jëlee kuwam lamb ji day jeex kon lamb jooju ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk yaa ngi jàng xam naa ni moom seen i entraîneur moom ci camp Pikine ak camp Parcelles ku ci nekk yaa ngi teg sa vidéo adversaire di jàng ay faayam di jàng ay ay ay forum ndax loolu dafa bokk ci làmb mais nag li ma ci gën a neex mooy làmb ji ñu ngi naa du cinquante cinquante deux cent deux cent la ndax làmb soog la ardo nag maa ngi koy ñaan bu mu indi bu mu indi saak ameewu boîte pharmacie na indi walis ndax làmb jooju walis waaw wali dama ndax làmb jooju su arbitre ne Modou pare nga ama pare nga arbitre na teel a génn seen diggante ndax combat bi dix premières minutes cinq minutes combat bi du ko paas waaw ndax am na loo xamante ni Ama moom la bëgg te am na loo xamante ni Modou loo moom it moom la moom lay cherché ku ci nekk cherché mais li am li problème bi ku ne xam ne ni Ama moom arbitre bu ne fër day dox sa kaw damaa xamul nag bu doxee wuti xarañ loolu lu mu fay fekk kooku yàllaa xam dañuy ñaan yàlla eggalañ ci mais làmb ji moom atta boppam jaay na boppam ndax lii laa bëgg ci ñaari mbër waaye ñaari mbër ñu ñëw ci lamb ji ku nekk naan yàlla yàlla mais jaam boo gis muy bëre yàlla lay ñaan may ko ndam mais dafa war a sab-sab xam nga nga jaay sa combat say supporters yu ko dégg sax tayaloon daal di ñëw ndax loolu laa bëgg ci làmb ñu jaay ko mais combat boobu daal bintu bintu rasul combat boobu daal ku la ci mënti match nul moom séentuwuma ko ci dóor mu a këpp nag mën naa ko ci sentir mais pas tellement dama ko ci xalaat nii rek mais pas tellement li ma ci gën a xalaat ñu dalante ay ay coup gauche droite yu dal daw jàppante kenn def action dama xamul ndax kenn ki bu defee action da koy daw bëtt kenn ki daw wéyaloo ko daw xarnaloo moom mais xam naa ni lamb ji daal ku ci wax rek da ngaa far ndax Modou Lo surtout grand champion du maye dara Modou Lo bi mu téye roi ba léegi mi ngi doog a bëri ama 4 ans ngi nii 5 ans bëriwut mi ngi doo a bëri ama du ñëw di wanteer kombaam Modou Lo tamit roi la téye du ñëw di ko saax saaxe te fi Modou Lo toll ak li ko nit jiiñ naan daa màgget imaam laak du imaam la cinq lay leer waaw. mystique nag parce que gis nañ ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor euh, euh, Modou Lo nee nañ dix mille fois ñoo mën ki nga xam ne moom mooy Ama Balde Ama Balde tam ñu ko yor tamit loolu la ñuy wax wàllu mystique yaakaar nga lamb dina bëri mystique. non fii may wax sax am na benn camp boo xamante ne ñi ñi wër mbër mi nekkuñu fi damay bañ a wax rek dégg dégg naa leen fu sori waaw benn camp bi am na benn camp boo xamante man am naa ci lu leer am naa ci ay nekkuñu réew mi ci réew mi. nekkuñ ci réew mi quoi nekkuñ ci réew mi am na benn camp boo xamante ne ma wax ak yow nii nekkuñ ci réew mi fii may wax ak yow nii xam man damay topp làmb quoi man dama koy topp damay topp lu bëri nekkuñ ci réew mi kon combat boobu ku la wax ni mystique amu ci dalay nax ñaari mbër yëpp wóolu nañ seen doole mais pour seen gën a xel de gën a dal il faut nga téye mystique ndax ñaari mbër yi bul fàtte ni dañoo xaw a yem ci ay mystique moo wax la ko tey nag. est-ce que ñaari cas yi sax mënuñoo dem ba am kër guñ bu bokk ñoom ñaar te duñ ko xam ndax sëriñ si kat attention sëriñ si ñu bëri nii lañ taamu de ñu bëri boor bi lañ taamu xam nga léegi nag mën ngaa dem ba dugg ci foo xamante sa adversaire fa lay ñëw te sëriñ nag naa la yëgal leen tey ma wax la ko tey boo fa ñëwee yow mi di mbër man may mbër ma ñëw joxe million nga joxe 2 million yow lay ñaanal man nag xam nga lu may jox gàllaaj gi pour daanu rek yow lay jox waaw waaw ki joxe 2 millions ki joxe bokk. sëriñ si ñoo gën a ñeme yàlla ñu ku ci dàq fen am nañ yàlla baal ku ci dàq fen sa morom su suma ñuy génn ci internet bi fii fen rek fen rek. fen rek gëmuñu dara fen dañoo waroon wax nag ni mu koy daane bala maa gënoon a xam ne am nañ xam-xam dañ naan bu jour ba ama ngemb lu weex lay indi wala Modou Lo ngemb lu ñuul lay indi di daan rek ngay dégg te ñoom ñëpp ñu ngeeg seeni i jeeg nag koo ci dugguloo xaloo mi ngeeg ab jeegam duul rek seen appartement yi. laa ilaha illallah Sénégal Sénégal toj na rajax rajax sëriñ si te mënuñu dara doxaan lañ mën ak dóor ak wax lu dul dëgg li ñuy feen internet sax lu bari li ñuy feeñ du bari sax mais koo gis mu taxaw xam nga di wax ratatatatatatat xamal di day fen man xaadim maa ko wax nañ wax ni muy daanoo ak nan lay daanoo doo ko dégg de dañuy wax rek mu tombe mu looy xam nga am na ñoo xam ne sax dañuy bàyyi ba combat am sax ba ba daanu ñu def au benn kii def benn ojo wala def benn vidéo nekk kii waxoon na ko daal di génne vidéo bi te fekk vidéo bi bi combat bi daanoo la ko génne ay fen waxuñu dëgg ñoo yàq réew mi ndax nañu jigéen ñi sa classe gi nag la ñuy a gis xale yu jigéen ñi mel ni yow buñ la gisee ni mbër yi paqueté noonu lañ lay paqueté dañ ñoo dàq paqueté nag dañ lay paqueté xam nga paqueté xam nga man lool ma metti ci réew mi soxna si man loolu daf ma metti xale yi ñii nax fi ne nii am na jigéen ñoo xam dañu xam nga jigéen ñoo xam dañuy dem ci sëriñ pour ay ñaan am ay jafe-jafe sëriñ bi tëdd leen duñ ko mën a wax du caaxaan ay jabari jàmbur yoo xam dañu dem ci sëriñ sëriñ bi war leen a ñaan la tëdd duñ ko mën a fu ñu koy jooyee man li ma ci xam du jeex du xaaj mais ñoo ñàkk seenu fayda yow sëriñ defe nga ni war naa jël ab mètre ne day natt kanamu jigéen am na. natt natt mètre nii mel ni ku mel ni kuy jël mel ni kuy jël mesure ci ci nit koy ñawal ne kanam gi. sëriñ caga ah, caga ay caga lañ caga nga gis ñoom moo taxit ñoom ñëpp ngóor a keng la ñu naan sëriñ si ñoo dàqandoor ngo ñi fi ne dañuy jaay bagage yu dëgër yooyu barki sëriñ bi dañuy fen boo leen lambee bu béy sax leen raw ñoo raw ñoo raw bu kinaara xam nga man yooyu daf man daf ma neexul ci réew mi ko quoi ndax dama bëggul. ngay boo wanee sëg mën da toog bu nit ñëwee nga faj aajoom jàppale ko te yàlla tax mais ñoom jàpp nañ ñu duñ dee jigéen ñi nekk moodu moodu di góorgóorlu nga xam dañuy soxla ay ñaan dañ leen a nax ñi ay 1000 euro ñi ay 2000 euros fen rek ah, man am na ci ñoo xam dañ may woo barki sëñ Tuubaa na ma sëriñ diw nangam la ma def sëriñ diw nangam la ma def billaahi mais loolu ah ci de waaye chaque jour nga gis leen ci net bi ñuy duul ak seen ngal di moustache seen seen i col fen rek la ñuy def man xaadim man maa ko wax ñi ko mën dëgg du sëriñ sëpp de du ñëpp mais ñii ma gis nii fen ak duul ak rambaaj ak doxaan borom taal wu rek la ñuy bañ a gis nag borom taal wu rëy la ilaha illallah gisee borom taal wu rëy xaalis kontaan nañ ñu bàyyi rek nga tàggoog ñu ñuy seetaan waaye nag faaw nga wax ñu état de forme nga xamante ni euh, moom mooy Tapha Tine comme Tapha nga faral te nëbboo ko nga daal di tàggoo. waaw xam nga boo xoolee boo xoolee Eumeu Sène force lay entraîné temps yi mi ngi entraîné bu baax xam nga li muy entraîné pour bu arbitre bu jëwee jël Tapha Tapha Tine épaules yeeg bras yi mën ko bloqué moom ci loolu lay liggéey xam nga Tapha Tine ku xam ne am na relance te njool la te am na nu muy demee sax bu ñu dawee jàppoo su Tapha Tine jëkkee jàpp Eumeu Sène mën naa bañ a jàpp ndax Tapha Tine moo sur relance mais soo bëggee téye soo bëggee téye soo bëggee téye côté bi da indil droite bi boo dee bay jàpp droite mu indil la côté gauche noonu la lay biijee ba nax la daan noonu la def bombardier yooyu yëpp kon ci làmb la mais ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci état ñu ngi ci état bu baax ñu ngi ci forme bu baax mi ngi mel ni Ama Baldé Modou Lo xam naa buñ ko defee ba pare sax après du ñàkk boo amaatee jot loolu dinaa la ñëw wax la ku ci nekk kii xam nga làmb jooju dafa nekk làmb joo xamante ni ñoom ñaar ñëpp ko soxla te ku ci nekk man xam naa say faay mais du ko wax ndax dama leen a yërëm quatre lañ toog bëreewuñu kon ñaar ñooñu jar nañoo yërëm xam nga mais li ci am solo rek mooy combat boobu ruq cin luy baax la amul benn ruq buy sedd muy diggante Pikine ak Parcelles ami chers fidèles internautes yaakaar naa ni waxtaan bi am na solo te njëriñ lay doon ci yéen ñi nga xam ne rek yéen ñu seetaan tey Père Khadim Ndiaye la fekk fi nga xam ne moom mooy këram Caaroy Géej waxtaan ak moom ci làmb yi nga xamante ni rek moom moo nekk euh, suñu kanam yaakaar naa ni waxtaan bi dina leen neex di leen jox dig daje incha allahu rabbi très prochainement ak keneen jaajëf merci beaucoup